واغفر لنا ربي يوم البعث في صوري من الكابرية باعث يا الله واغفر لنا ربي يوم البعث في صوري من الكابرية باعث يا الله نحن ضيوفي وأحبابي لا صمدي أنزل مقامات يا باعث يا الله صلي وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواصحبيا باعث يا الله بسم الله salaamaaleykum wa rahmatullah belaaji moomin nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mu ne bala ñëw sori maamu ma waroon dem mu ne waroon nga toog tuuti im ngay dem waaw mu ne day jàpp mu ne li tax mu wax loolu léegi baa ñoo dugg ci waxtaan wi ñu bokk wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mu ne nañ benn fatiha ñu jàng benn ayatul kursi yu fukki lixlaas ak benn ñu yeesal ñaan yi ki tax ñi dajooy fii ci boppam comme ni mu ko defee moom ak aki bopp aki bokkam nee na yal yàlla jotal yool bi Seydina Aliou Sakho aki bokkam mu ne gannaaw bu loolu woyee ñu ngi nuyu képp kuy toog mbokk yi fi dajee ñiñ ci xam ñiñ fi xam ak ñiñ fi xamut ñëpp ñu ngi sant yàlla di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jël nuyoo bi jokko nijaayam Omar mi toog nga xam ne tey mooy kilifa ku toog fii kon ku fi nekk rek yóbbaale na la mu ne wax ji du bari nee na waxtu wi dafa jot si mu ne xalifa muntaxa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di yokku sant di la wax ne kii ngeen di ñaanal lii ngeen defal ko dafagu leen dara ci moom lu ko ëpp fuuf mu ngi fi moom ndax kenn la woon ci ñi yàlla tegaloon jaam ñi mu ne nee nag nit ñi nag lépp xàmmee duñ ca day yegg mu ne waaye seen baay am na fu ko yàlla affecté woon boole kook biir bu mag boo xam ne kum teg barab foog nga ne fa mu ne kooku moom ngeen toogal fii tey loo xam ne rijaalu laay amoon na ko seen baayam ko dëxañoon ci këram kër gi lu ne mën na fi am mu ne ndaxte ñu bëri wàcc nañ file ak seeni maqaama def fi dara ba ko fi li ñu xam du loolu duñ ko buub mu ne bas bas ba jot mënoo koy bale yóbbu kon mu ngi fi ku fi sàkku dara jaara dikk fii dugg ci ruq bii wax la ngay wax dem insha allahu rabbi yàlla dana fay soxla boobi bokkoon na ci mu ne sa baay bokkoon na ci ñolle. ki ko defaroon. ki ko defaroon. kum defar ñu xam. kum defar ñu xam la. waaye boobu doonin sax. ma ne boobu doonin sax. mu ne boobu doonin sax. bëggu caa dugg. waaye daal. waaye daal. kii. kii. lu ngeen ko defal. lu ngeen ko defal. mënu leen koo fay. mënu leen koo fay. dafa amoon genn góor. dafa amoon genn góor muy ñaax doom yi ne leen man de kaang laa foore laa jarga laa imaam laa borom dëkk laa ñu dem ba ñu dem ba yàgg am ci doom yi am ci doom yi ku takk ne jot na góor gi ku takk ne jot na góor gi mu ne ko bàyyi la nga waxoon man fi ne yegg naa ca de li ma yeggal des na de. mu ne ko des na de. mu ne ko lum des. mu ne ko lum des. mu xaaral. mu ne doom ji mel ni ji ma am. ba xaaral ba am doom ji mel booba ngay yeggal. waaye yéen nag. waaye yéen it nag. Ah, eh, mu ne Seydi Lu Wujood sallallahu alayhi wa sallam yow xam nga ci dara. fañ ko yónni. yàlla ne dootuma yónnee. yàlla ne dootuma yónnee. ndax bu waxoon dootuma mu ne yàlla waxut dootuma xam le de. bu ko waxoon mu ne bu ko waxoon. lu mu leen yónni duñ ko xam. te ba tey. te ba tey. a ngi cee naan ba mandi. ba takkane ne mooma. Hmm? mu ne mu ngi am de. mu ne téere alquranul karim kañ la wàcc. te mu mel ni tey jii lay waxat. te mu mel ni tey jii lay waxat. yooyu ne dara jógeewu fi. mu ne dara jógeewu fi. li fi nekk li fi nekk. mu ngi ci nangoo jëfee rek. gannaaw xàmmee nga. gannaaw xàmmee nga. bu gannaaw bu xam-xamee. jëfee rek. yàlla nangoo jëf lay fay. yàlla nangoo jëf lay fay. ku ci jàpp soow la. te jëf nangoo lay defal dara. kan koy ba mu dem. waaye ki nangoo jëf. waaye ki nangoo jëf. fay rek. bi nag yàlla dana ko fay. mu ne kii yàlla dana ko fay de. ndax jëfal na yàlla. xalifatul muntaxaa dina ko fay. xalifatul muntaxaa dina ko fay. ndax xam na fu jaar. ndax xam na fu mu jaar jëfal na ko. ñi fi des it jëfal na leen. a bi nga xam ne. akaabir bi nga xam ne. moo doon nampal ñëpp. nampal ñëpp. nampal na ko muy Cheikh Seyda Jomar. ba gërëm ko. mu ne Cheikh Alaaji Omar bokk na ci. Alaaji Aliou bokk na ci. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. njëkkoon nañoo bokk. njëkkoon nañoo bokk. ci ñi koy jàppale. Alaaji Omar Ndaw. lu tax. mu ne lu tax. borom wilaaya du man. borom wilaaya du mën. fañ koy mënal. te boo seetloo. te boo seetloo. njëlbeen ak taalibe njëlbeen ak taalibe njëkkee néew doole mu ne njëkkee di mooy taalibe rek bu xëyee bu xëyee fees deel it bëggatu ca dara mënatu ca dara mënu koo lekk mënatu da naan mënatu da sol mënatu xamatu ca soxla waaye ba mu jaay am soxla dara kóllë nag e ba muy toll foofu mu ne sa baay ba muy toll foolee ba sëñ bee toll ci dimbale ba sëñ bee toll ci dimbale bokkoon ci ñi koy dimbale sa baay fa bokkoon ci ñi koy dimbale koo xam ne nag bu xoolee nga matal koo xam ne bu moom bu la xoolee sa mbir mat nga da ko fajal soxla nga da ko fajal soxla xam nga ne danga nga xam dara de waay da ngay wax ne ñàngoor kum ne déedéet buñ la lugut nga am nga am problème de ko kum riis ñu ñu lugu ngeen bokk góorgóorlu. mu ne ngeen bokk góorgóorlu. maam bu so. Badiane. Eh, taxawaay bi. mu ne taxawaay bi. nii ko. nii ngeen defee ko. say rak. Ah, ak seyrak rak. bu leen ko baax. mu ne bu leen ko baax. waaye yaakaar naa ne am na yaakaar ci ne. du ko mën a ngeen ko mën a baax. ndax kenn ku ne liñ def ci yow nga téye ko bëggoo mu rëcc la bëggoo mu rëcc la doo ko baax mu ne ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi taxawaay bokk gi yëpp eh, taxawaayu taalibe bi fa ngeen a nekk taalibe nag te bu leen tong tong ragal jël la ku xatar bi ko yegg suuf nii laa mel. nii laa mel. ba tax yu bëri bëggoo cee dugg. ba tax yu bëri bëggoo cee dugg. bal bal tongloo sa bopp. bal sa bopp. mu ne sa maam xatta fa waxoon ne. Ah, alaaji laayin. la waxoon ne ko. kër gi de fa mel ni. fa bëgg soppeeku. mu ne ko kër gi de fa mel ni fa bëgg soppeeku. ci nit ñi dafa ñëw. ci nit ñi dafa ñëw. mu ne ko waaw. bay laayin ne ko waaw. mu ne ko. mu ne ko. xale du sibit ma xale du sibit. maa ngi lay xamal ne. maa ne. nit du ëppi bokkam. nit du ëppi bokkam. na teg. na teg. bay laa yéen yaakaar ne ma ba yaa jël ci jaay teg dara. moom mu jël kurusam. moom mu jël kurusam romb ko. yow nag yaa ngi ci yooyu. mu ne yéen nag yéen ngi ci yaa ngi ci loolee. puso bi. mu ne yaa nga puso bi. yal na yàlla dimbale. yal na yàlla bi. bi ci njëkk mooy yal na wér am yal na wér am bu wér xamee bi ci topp li ngeen ngëb ci seen xol yi yàlla bu mu rëcc bi ci topp loo xam ne yàlla fa koy def war sagal nit loolu fay naaw da dem rek yal na yàlla may leen ngeen xaw ci bi jaay seydil wujoot loolu la daal neexamale waale kaddu yi fii kon kontaan moo tax muy wax mu ne Mahmoud mii toog daa kontaan ci moom lool ndax ci ay bokkam mu ne nijaayam xaritam la lool mu nekk mu nekkoon mbay sëñ Ousmane ke Samba Rexi waaw Nasiru sama rakk foofu la nekk di jàng man na juróomi mu ne bi mu tëree ak tey man na juróomi at. bëgg naa bëgg na caay jot. waaye nanguwuñ ma koy jox. waaye nanguwuñ ko koy jox. waaye may itam. waaye moom it. amaguma soxla ci moom. amagu soxla ci moom. li ma bëgg ci moom lu mu bëgg ci moom daal bu ca nee. moom jaanam wàcce na. moom xam rek la bëgg ci moom. xam rek. kii am taxawaay ci mu ne kii am na taxawaay ci ñoom lool. ci ay nijaayam. te moom mu xam ko lool. moom xañ na xàmmeewu ko nim ko xamee. waaye nijaayam. xam na leen bu baax a baax. alaaji daraame. doomi ndeyam la. Eh, sëñ Ousmane. xarit la tam la lool. da daan daan naa wax ci moom loo xam ne. bëggoon ni ñi daan ko dégg dégg. xam naa dafa ëpp ci moom. waaw moom dafa ci moom daal. waaye moom ci ak mbaaxam. waaye ci ak mbaaxam. daana waxee noonu moom. samp gi ñu ko samp fii. waaw mu ne samp gi ñu ne samp file. ak na nga yëngatoo ca daara jële. ak na nga yëngatoo ca daara jële. na ca sa loxo nekkee. moom xam na ko. yal na yàlla gën a dolli. yal na yàlla gën a dolli. yal na yàlla gën a dolli. mu ne adduna bi le. naka jekk. naka jekk. naka jekk. naka jekk. kila xam le ñi xam xamle ñoo koy dundal nit ni ku nekk jamono ngay jural doom ana bàyyi tey yaa fi nekk toog bu defatoon ci lim def ci yow ni kon du ngeen mën li ngeen mën waaye mu mel ni yàlla xamaloon ne ko ne jamono ngi ñëw am na lu ca war nekk ci jamono. te nekk ci jamono. nekk ci jamono. nekk ci jamono. bokk ci jamono ja. te bokk ci jamono ja. moo gën nekk ci jamono. moo gën nekk ci jamono. te ne fa rek. te ne fa rek. yal nañ ci bokk. yal nañ ci jamono ji. yal nañ ci bokk. mu ngi sant di ñëpp di gërëm ñëpp. mu ngi sant di gërëm ñëpp. rafetlu nañ taxawaay bi bu baax a baax. rafet nañ ko lool. yàlla mi ko tàmbali. na ko samp bu ko sampee na ko nokkas bu mu dëgër yàlla bu ci dara yàqu yàlla bu ci dara yàqu la nga nekkee fële ñu ngi koy xool bu boo ñu gisul tim ñu ngi lay gis li ngay waxit ñu ngi koy déglu loolu sant yàlla la defar la ca ñu ko dégg ña koy déglu dafay wax mu ne dégg ak dégglu ñu benn ki dégg ki dégg. ne kiy dégg. bokkul kiy déglu. de bokkul ak kiy déglu. kuy déglu. dana déglu li nga wax. dana déglu li nga wax. ndax mu mën koo xam. ndax mu mën koy xam. kiy dégg nag. kiy dégg nag. am na ñu ne ci place bi. boo boo laajtee lu ustaas Mamoun wax. wala nga dem da ko nettali. fu ñu ko doon waxee rek lay wax. te mu ngi toogoon ñu koy wax. ki di dégg nag. ki di dégg nag ki di lépp loo wax rek jàpp na ko moom. waaye bu ngeen demee yal na ngeen xam ñu leen di déglu. mu ne bu ngeen demee yal ngeen xam ñu leen di déglu. yal na yàlla dolli leen ñu leen di déglu. fañ leen fañ leen yónni. fañ leen yónni. te yónnante ngeen nekk. ca barab ba ngeen nekk. bu ngeen demee. bu leen noppi. da leen wax. mu ne li ngeen di wax lu baax laay doon. kon comme lu baax la nag da leen wax. Ah, da leen wax. tey dégg kay déglu. dana jëriñu. ku dégg dégg rek la ca am waaw loolu rek la nit rek moom li ngay wax li ngay wax bal foog ne dana am koo xam ne dana am koo xam ne ni nga ko toll ni nga ko toll loo rek la ca loolu rek la ca am wax moom ci la wax mu ne wax moom ci wax ni nga ko toll rek ni mu toll ci yow rek noonu nga am ca wax ca yow sant yàlla mu ne mu lay sant bu baax mu ne waxtaan wi neex na mu ne ndax sax du waxtaan xaala laahu xaala rasulullahi loolu yàlla rek la waaw mu ne loolu digle la ndaw luñ la yónni jamaano bu ne nag jamaano bu ne yàlla da ko dencal ay nit waaw da ko dencal ay nit dara dara lu fi tegoon dara jógu mu ne li yàlla lim fi tegoon dara jógu fi lépp a ngi fi lépp a jamono bu ne am na ñu ko yore foo ne yàlla newu fa foo ne yàlla nekku fa ya yàlla nga fa yow yow la fa nekkalul mu ne waaye foo ne yàlla ngi fi boo demee rek jëlee fa yàlla waaye boo ne newu fi fa la fa nekkalut waaye mu ngi fi yàlla seexluwut amul benn lakk bu yàlla seexlu wala bii moo ko moom yàlla seexluwut seexluwut de fu ne lay dugg nun nit mën a mel gannaaw dégloo déggoo làkk bi itam te yàlla ngi ci yow fa nga yàkka fa nga yàkkamtee saafanteeg moom te yàlla rek rasul lay tax ñu ngi sant di gërëm gune yi yal na yàlla def leen mag yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqulee yàlla bu leen yàqule yàlla bu leen dara galang la lu lépp lu bëgg a jaar seen digganteeg yàlla yal na yàlla jaar seen digganteeg loolee yàlla musal leen ci taxawaalu ak sababu taxawaalu yal na yàlla musal ci taxawaalu ak sababu taxawaalu yàlla musal ñu ci pexem seytaane yàlla musal ñu ci pexem seytaane mu ne dégg na wala fi di wax ne fu seytaane fu mu xajul rek lay dugg mu ne d'accordul mu ne seytaane fu mu dugg dañ ko ubbil buntu dañ koy ubbil buntu waaye boo ko benn buntu du dugg waaw mu ne yàlla bu mu fi am buntu yàlla bu fi am buntu bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu ci liggéey yàlla na barke sëñ Mamoud mu loxo bi yàlla na gën a barke yàlla làmme bi yàlla na gën a am ijaaba yaa ñaan ngi yàlla na gën a agsi bi jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba barke bi Imaam wax sama jàngale nag dañ cay toll boo ja boo yeggee ci xamle ba ngay digle rek mu ne jàngale moom fañ cay toll waaye boo yeggee ci xamle da ngay digle rek boo yeggee ci xamle ak li doo ko mën a wax fokk rek fokk rek moom xam ku fa ne. faaw nga xam ku fa ne. nga nekk ci nga nekk ci yàlla rek. waaw ah, ah, ah, yàlla noonu la. yàlla bu yàlla nañu gën a jox boppam. yàlla nañu yàlla gën a jox boppam. bu yàlla bu ñu lépp luñ ko laaj. yàlla na nangu. mu ne comme laajuñ ko lu dul boppam. yàlla nañ nangu rek. ak sangam bi. yàlla nañu ko nangul. bi jaay Moustapha ngeen baal ko àq. ah ngeen baal ko àq wasalaamaaleykum wa rahmatullah